waxtaanee tàggat yaram a euh, Mamadou Ndiaye njëkkee ko ak euh, tournoi UFOA. waaw tournoi UFOA démb Sénégal euh, jël na final bi daal di daan ñi nga xam ne waa Guinée 4 buts à 0 mu nekkoon match bu am solo bi nga xamante ne suñu gaynde yu ndaw yi amal nañ ko fii ci stade Ngalandou Diouf tournoi UFOA boo nga xam ne dafa daje woon ay équipe yu bari ñi mu nekkoon occasion bi nga xam ne day permetre ñu def quali tournoi qualificatif yi nga xam ni mooy amal CAN Tanzanie 2019. Mm. ci wàllu xale yi nga xam ne amaguñu 17 ans liñ ci gën a rek mooy gaynde yi dañ ko dañu gagné tournoi bi ñaar amuñu benn défaite euh, dugal 15 buts euh, encaissé wuñu benn but meilleur buteur bi di euh, di tudd Alioune Baldé nga xam ni am na quatre buts meilleur joueur bi di di Mamadou jaw ak euh, meilleur gardien bi nga xam ne Mouhamed Gueye la tudd en tout cas euh, gaynde yi amal nañ tournoi bu am solo di féliciter staff bi euh, yombul woon ñetti weer ñu ngi woon tubaab jolaaw di waajal li nga xam ne mooy tournoi UFOA bi en plus comme ni ñu koy waxee football petite catégorie daf ci am solo mm. ñu ndaw ñi dañ leen waajal bu baax pour xool génération yi war a ñëw voilà et puis ñu waxtaan ci président wu CAF ak visite bi mu doon amal fii ci télévision daje eh, fii ci locaux yu groupe Futur Média ñu waxtaanee football wax ci nga xamante ni passion bi nga xamante ni eh, Youssou Ndour am na ko kii di président CAF bi di Ahmad Ahmad malgache bi eh, wane na mbégteem waaye tamit joxe ci ay information yi nga xam ni ci diggante war am ci footballu Afrique bi mën nañ déglu élément bi nga xam ne Mamadou Fall defal nañu ko. nit yu am dayo ñoo daje tey ci bërëbu groupe Futur Média. monsieur Youssou Ndour ak ganam bi di président bu CAF di Ahmad Ahmad daal dina ñuy waxtaan ci lu tolloog fanweeri simili la ñu waxtaanee moo di wàllu football mu nekk ab jàkkaarloo bu am njëriñ. le football c'est seulement de la science mais. Euh, football la du science sport la art la te comme que moom dafa yëngu ci wàllu football moo tax ma ñëw fii maa ngi koy gërëm nag. ci dalal gi ma dalal. Je suis venu et je le remercie sincèrement d'avoir pris du temps de nous accueillir. profité ci loolu président bu CAF bi daal dinay sargal bu baax politique infrastructurelle yu njiiti réew mi amal. j'ai écouté le discours lors de l'inauguration de la. loo discours am ci inauguration Dakar Arena mu ne dana defar stade bu cinquante mille places. c'est ce que nous tous nous souhaitons. genre yi la ñu soxla ci si wante ci wàllu ragal gi ñu am ngir taxawaayu kan ca Cameroun kaf moom daal dinay jagle responsabilité yi rek organisateurs yi nga xam te ni ñooy amal édition 2019 bu ñu bëggee suñu développement continent. faaw ñuy taxaw di laaj yenn yi dem leen ngeen laaj Camerounais yi ndax ñun CAF duñu defar stade duñu defar dara beneen poñ bu ñu yëkkati moo di probable concurrence buy am kon ci diggante UEFA ak CAF ci amalinu la Ligue des Nations européennes. la Ligue des Nations. pourquoi ils ont créé ça. ñoom xamul tax ñu créé Ligue des Nations. c'est pour éliminer profitent. ngir kon dindi mboolem agent yi nga xam ne dañuy ci football di ko di ko jaarale ci a des agents qui organisent des matchs amicaux pendant ces fenêtres de la FIFA. PCA bu groupe Futur Média bëgg lool ci visite bu président bu kaf amal fii ci bërëb bi daal di gunge kon kii di ganam bi ak contentement bu mat sëkk. merci ñu ngi lay gërëm bu baax on parlait d'Éric Zemmour ak Absa ak Absatou Sy bon on parlera pas de ça ah c'est un non événement pour nous euh, président wu CAF ñëwoon seeti euh, président groupe euh, Futur Média voilà rencontre de deux passionnés de sport. oui ku ci nekk wane sa mbégte dajeeg sa morom ñu waxtaanee li nga xam ne mooy jënal jëmale kanam football africain en tout cas profité na waxaale ci li nga xam question bi nga xam ne moom la ñëpp di poser actuellement muy préparation wu CAN 2019 yéene am fële ca Cameroun Cameroun mi nga xam ne dañuy jiixi jaaxa ba xam na dina yegg dina mujj yeggale événement bi ba xam dina ko amal euh, ou pas en tout cas président CAF nee ñoom ñu ngi ciy xalaat dinañ ci gën a indi ay waaye responsabilité yëpp ñu ngi ko jox waa Cameroun ndaxte ñoom euh, ñi ngi ci wàccaay stade yeeg préparation li nga xamante ni muy accueillir euh, CAN football bu 2019 prochain Sadio Mané démb dellowaat na buum ca mboy mboy ga dellowaat na buum def match bu am solo bi nga xamante ni ci kanamu ñoom Neymar rek ñoom Mbappé démb Liverpool daal daal di gagné ñi nga xam ne mooy Paris saint Paris Saint-Germain nga xam toujours il peine à gagner les grandes équipes européennes euh, ci Ligue des champions bi Paris démb dafa dem Anfield ñu door koy door 3 buts à 2 mu nekkoon match bi nga xamante ni ba ci 90e minute yi deux buts partout la woon waaye ci fin bi la Firmino daal dugal but bi nga xam ne moo jox victoire waa euh, Liverpool liñ ci gën a seetlu it Sadio Mané def match sociaux yi ñu ngi partagé doute bi nga xam ne doute na ko kii di Neymar. voilà ñenn ñi ne dafa daal di delloo Neymar ba ci bëri.

Excusez. mais bon dañ koy gars wax ay Samba parce que li ñuy wane fee doo ko wane fii <laughs> fii parce que vraiment xam ne nit ñi seetaan ak ñeen ñi nga xam ne dañuy football dañuy constaté rek hmm. boo gisee yenn spécialiste dañ lay wax ne la carrément bu jamonoy 2002 El Hadj Diouf dafa amoon ñenn ay ñoom Khalilou Fadiga dafa amoon ñoom Henri Camara voilà moom dafa ah. tombé ci ñoom Ismaïla Sarr dafa tombé ci ki nga xamante ne mooy Diao Baldé Keita ñooñu tamit dañu war a yéegal niveau bi ci moom fi muy toll bi nga xamante ñoom nañ ko mën a jàppale ci terrain bi ba bu yoree bal wala ñoom tamit ñu koy mën a jàppale ba bu yoree bal ñu koy gën a jàppale sur le plan offensif donc euh, Sadio la woon contre Neymar mhm. mu wane boppam démb démb kay wane na ñaari numéro yi carrément carrément quoi merci Mamadou Ndiaye pour ces infos sport 9h32 mooy euh, euh, doog